la ñu ànd ak yéen ci la jotaayu xibaaru digg bëccëg kii ci àttala di ci feggoo ko Suzanne Deme ma lay nuyu di la ziara. maa ngi lay fay bu Aïcha boo noppee ñu dem ca la gën a fës dina ci bokk waxtaan woo xam ne day ñeel wa jëfandiku yi ak yorum ñu denk wàllum jënd ak jaay ñoo ko nu amal ni ki tey jile jàpp ne nag la ñu fa ci ay root ci ay kilifa ci ay ndogal root na ngir rek wàññi bu baax a baax njëg ko dund gi woyofal askan wi seen wàllum jënd mu nekk loo xam ne daal Serigne Gueye Diop du jëriñ gi bëgg na fexe rek bañam yëpp nag askan wi jote ci te nag seen li ñu génne ci koppar daal du demee noonu bu ko defee ñu jàppale leen bu baax ci seen nekkin liggéey bi nag jàpp leen ne ñu ngi koy wëyal addu jëmale ci weneen mbir marchand ambulant yi nga xam ne ñu di génnee fa ñu nekk ak itam euh, njëgu ko mburu mi nga xam ne bëgg nañu ko wàññi la xew ca camp pénal loola yëpp ak itam Médina Gounass nekk nay ponk yu coalition gëm sa bopp daal di yëkkati daal di joxoñ baram tuma nguur gi nag jàpp ne daal ñoom ñee dañ ci ànd ak pat euh, pataaral addu jëmale itam ci beneen mbir dukk nemmeeku bi nga xam ne Bassirou Diomaye Faye amal ne ko ci diwaanu France séq waxtaan ak naataangoom bi di Emmanuel Macron addu jëmale ci léegi lëkkale ñaari réew liggéey wi waaye tam fexe rek euh, ba lañ cay am rek euh, mu tolloo Sénégal gis ca boppam euh, nekk na loo xam ne mooy sàkkute fois ñu bari nag bokk itam ci coalition Diomaye président daan nañu koy rafetlu waaye nag nee ñu Sénégal ak France musuñu jël ndogal rek dakkal ba faw seen diggante mbokk yi léegi gën fas bu leen taaxle loo ñëw kenn ci yaatal gi gërëm leen sant leen bu baax a baax cant bi ak kóolute gi Suzanne Deme fi ñu koy tàmbale ba mel ni jamono ji ñii di waa Askan dafa mel ni am nañu njiit lu yees sax muy Ayib Tafé mooy rek njiite président groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi ca pencum ndawi réew ma toog waawee nag mu ngi fa utu Birame Souleye Diop mi ko nekkoon moom nag dafa rek dugg ci nguurug Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bi ñu ko dénkee lépp lu jëm ci wàllu mine ak la lii ponk la mbokk yi yoo xam ne rek nañ siwaat ak yéen ci atal filex ñi leen jotaayu xibaar waaye laatalo rek ñu àddu jëmale ci lii ñu leen jotoon junj mu bokk ci rek ndajalu mag li nga xam ne ni jagleel nañu ko wàllug consommation ci biir askan wi mu mel ni daal jamono ji lépp loo xam ne daal dogal la woon ñu daal di koy jël mel ni yëf yi ji la ñu ko fas yéene sëgg mu ñeen rek wàllug dëwlin mburu ak yeneen yu ni mel la àndawal yooyu fa seen rot waaye itam nekk bànneex ci askan wi way jëfandikoo yi daal di rafetlu bu baax a baax euh, nguur gi ak liggéey bi nga xam ne ñu ko cay def bu jàppale leen waaye nag nee nañu liggéey ba na nga koy wóyal ni ki tey ci euh, lu ñu bëgg rek moo di nag daanaka fësal balaa yàgg ba ca cëggay firndeel ne war nañu jëmmal yooyu la njëkk bëccëg boobee sax Suzanne jàppal nag ne ci altine gi rek la ñu ko jàpp bu ñu sukkandikoo ci ndaw li nga xam ne moom moo ñu toggal foofee ca bilek ndaje di Moussa Mané loole lépp dana leen ko jukkil fi lekk yeneen jotaayu ko xibaar waaye laata loolu ñu àddu jëmale ci coow la am ca booru Medina Gounass mu mel ni jamono ji kuréel gi ëmb mboolem taalibe Thierno Amadou Seydou Balde ji xalif général bu Fuladu ñoom jamono ji ñu ngay woote jàmm. woote ñaari njabootu ko kilifa yépp ñu bolantoo nag waxtaan tegandoo fitna yépp ci suuf waaye itam sàkku ci état bu Sénégal moom ak taxawaay du ci am sukaaɓe fuladu nee na yéen xale yi fuladu sukaaɓe fuurankoɓe xale yi mana fuuranke muñe na ngeen maanaam mun balline hare na ngeen bàyyi xeex balline hare ngeen bàyyi xeex onon dendi sénégal yene bokku sénégal onon dendi région yene bokku région onon dendi département yene bokku département onon dendi arrondissement yene bokku arrondissement onon dendi commune yene bokku commune onen dendi saare yene bokku dëkk koro on muñtindirande ngeen baña muñalante taw o mbeyɗinani kono bu ngeen defee rek man a rafetluwuma ko man mais mi wiyani ko samba tooñi man de waxuma samba walla samba tooña ma samba walla samba lani tooñ min ko mbimi samba tooñi han man bane dema wax ne samba bu tooñe no ɗal tooñu naga tooñ naga bay tooñ siko samba tooña han fekkentene samba lani tooñ samba no muñ samba ya wax dëgg yàlla dañ la ñaan nga muñ wonda e allah nga anda ak borom bi subhanahu wa ko ɗum ñaagimi lool laa leen di ñaan ko ɗum ñaagimi man de lool laa leen yandi muñee maa ngi leen di ñaan ngeen muñ yandi muñee na ngeen muñ kersen aduna on nañu ruus mana aduna bi kersen julɓe ɓe ñu ruus jullit ñi kersiniren he ko e men ñun ñu amarante worma suñu diggante ñu waxtaanee jamono ji nag mbokk yi lu jëm ci na sonk kàddu yi nga xam ne jotoon na ko fee yëkkati Bougane Gueye Dany di njiital gëm sa bopp moom jamono ji dellusiwaat na nag delloo buum ca mboy mboy ga ci kàddu yi mu yëkkati woon jàppale nag ne jamono ji coalition gëm sa bopp Papa Bataxal la ñu fësal la daanaka dëxañ ca biir la xew ca Médina Gounass itam marchand ambulant yu ñu yëkkati fa ñoon daanee seena doole lu jëm ci itam wàllum njëg ak dund gi wàllum dem dikk bokk ponk yoo xam ne daanaka sàkku nañ ci ay leeral ci nguur gi waaye itam nañu daal métti du nañ tax bi gëm ca am coalition bi mag bi ñu duppee gëm sa bopp di joxoñ baaraamu tuuma woy njiit yi fi nekk ci juróomi poñ parti bu Bougane Gueye Dany bi nag daal di ñëwaat ci situation bi am fii ci dëkk bi li ci njëkk ñuy waxtaani opération de déguerpissement yi nga xamante ne nag ñooy am ci marché Colobane Kër ma Massar Petersen Sandaga loole nag jàpp nañ ñi amul njariñ itam dafay xëtt lu bari ci diggante way njiit yi ak ndaw yooyee di liggéey soxal nag wàññu mburu mi coalition bi nag di naqarlu li nga xamante nag moom moo di njiit yi li ñu amal la maanaam ñàkk waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ŋànk ndaxte loole nag dafay salfaañe bonne gouvernance soxal nag yëngu-yëngu yu amoon ca prison wu camp pénal coalition bi nag di naqarlu li ni mel di masaw itam way jur yi teewul nag ñu daal di woote ngir rek ñu amal ay daan yu metti ci ñi nga xamante ni nag ñoo wund li ni leneen moo di nag ñu ñoŋal nekkinu prisonnier yu fa nekk soxal nag li nga xamante ni nag moom la jëwriñ gi gàlloo dem dikk daal di amaloon ci wàccaayu tabaski bi maanaam daal di ne dawalkati yi nañu wàññi seeni prix itam mu daal di andi ay buus Dakar dem dikk boobale parti nag jàpp ni dogal googee jëwriñ gi war ko woon jël moom képp ndaxte loole nag mënees naa am njeexital ci yeneen activité ci njeexital ki nag buggaan ak àndanoowam ñu daal ñaan rek jàmm ak salaam uh, daal di ñëwaat ak gannaaw laale yi amoon ca Medina Gounass ñu bokk boobu leen loolu politique nag uh, ñuy woote rek ba ñu sàmm jàmm ji ñu bokk. Omar Thiam njiitum réew mi Bassirou Diomaye Faye ma nga woon nag ca Paris la France ngir amal fab ndaje ak njiitum réew ma di Emmanuel Macron ginnaaw nag ndaje lu mag li nga xam ne jagleeloon nañ ko wàllu vaccination ñoom ñaar ñooñu nag jot nañu waxtaan ci ponk yu bëri yoo xam ne boole na ñaari réew yi. li ko tax a jóg mooy gën a ñoŋoon rek ñaari réew yi taxal seen diggante bokk na ci itam dugal loxo ci wàllum énergie wàllum wérgu yaram wàllum formation professionnelle waaye itam lu ñu ci daal di amal ay yoo xam ne daal Afrique dina dem ba moom wàllu mbay mi itam waxtaane nañ ko ñaari kilifa itam doggu fasin daal lëkkaloo ay xaatim yoo xam ne ñaari réew yëpp ñoo ci gis seen bopp mu mel ni tukki ak nemmeeku boobu noonu tam tax na coow li daal di jib fii ci réew ko Sénégal waaye jamono ji Papa Ibrahima Senghor moom jamono ji nee na mosuñu rek bëgg daanaka dagg mbokkoo gi diggante ak France beaucoup ci coalition Diomaye président gis-gisam daal moo di boobee nag waxtaan daanaka day nekk yëf yoo xam ne Sénégal mën na cee gis boppam ci lu bare bari waaye itam nee na daal lu ñu bëgg moo di lépp xaw a temboo bi bi ko président Bassirou Diomaye Faye dem def di France c'est si invitation euh, Gavi mooy euh, organe boobu nga xam ne dafa xool naka la ñuy euh, doxalee bi ñu jógee si pandémie Covid 19 ak si feebar yi fi am yëpp ñu gis que ne Afrique vraiment am na sooxe bu bëri bëri bëri bu des si en matière de euh, de médicaments loolu moo waroon invitation bi président Bassirou Diomaye Faye profité aussi euh, euh, président Emmanuel Macron invité ko déjeuner mu dem déjeuner waxtaan ak moom te bi ñu waxtaanee ak moom ñu jéem a xool naka la ñuy gën a rataxalee diggante Sénégal ak France mais si rataxal boobu noonu ñu gën a xool naka la ñuy considérer relation bi ñu war am entre Sénégal ak France mu nekk relation boo xam ne euh, état ak état la relation boo xam ne Sénégal dina si gis boppam France dina si gis boppam parce que tey jii nii lu ëpp si deux cent cinquante entreprises ñi ngi Sénégal fii nii entreprises françaises yi nekk Sénégal donc vraiment loolu lu am solo la te am nga pétrole baa ngi nii di génn gaz baa ngi nii di génn donc ñu xam ne léegi Sénégal producteur de pétrole la donc dafa am beneen gis-gis bi ñu war a am si moom dafa am ne ni ñu ko war a xoolee Babacar Diop moom joxe na ca gis-gisam moom mi bokk ca taxawu Sénégal jàpp na daal ne jamono ji France ak Sénégal ay xarit la ñu mës a nekk. jàpp ne ñaari réew yi mosuñu am nag ay torof torof ne ko ñu ci nag di xamle ñoom lu ñu bëgg rek moo di lépp rek bu ñu koy waxtaanee na fekk mu nekk njëriñu ñaari réew yi. ndax bii mooy premier visite mu dem France te nekk na aussi koo xam dañ koy doog a fal baax na aussi tamit mu toog saafoon te waxtaan ak moom ñu am si moom yaakaar et je pense que li am solo dëggantaan. moom war na xam lan moo ko tax a jóg war nañ xam lan mooy intérêt Sénégal Sénégal ñëpp xam nañ ne France dafa yàgg nekk partenaire privilégié donc dëgg la ubbeeku nañu maintenant depuis jamonoy Abdoulaye Wade ubbeeku nañu ak waa Turquie ak golfe bi naar yi ah ubbeeku nañu maintenant ak waa Maroc et cetera mais loolu ça n'enlève en rien vraiment le partenariat privilégié bi nga xam nekk na suñu diggante avec la France donc tey ñun li ñuy xaar ci ñoom. mooy que partenariat yi nga xam dafa daan am suñu diggante ak ñoom nañ ko gën a équilibré la nga xamante ne dafa daan am mooy li nga xamante ne dañ ko war a séddoo wala ñu bokk ko tey ñu siy xaar ñu ne Sénégal ay 5 pour cent lay am et que maintenant les pays occidentaux yi di am ay 95 pour cent cest que yooyu la ñu war a dakkal arrêté ko. donc li ñuy soxla maintenant mu nekk dee partenariats équilibrés yoo xamante ne ñoom dinañ si gis seen bopp mais Sénégal di si gis boppam je pense que foofu la wax ji nekk. ci jamono ji ñuy waxtaanee lu mel mu mel ni Macky Sall moom tam jamono ji déggul jàmm dund ko loole nag tukkee ci ñi nga xam ne daal ñoom la doon àndal ndax boobaak léegi daal ñu ngi koy ŋàññ bu sukkandikoo ci Mamadou Sy Albert xam màcc ci wàllum politique la ko waral nag bokk na ci jàpp nañ ne lajji wu Amadou Ba lajji ci joŋati turé wi ñu génn ak itam taxawaay ñu ci turé mu woon di Macky Sall jàpp na daal jàppalewu ko lenn ci joŋante bi. ñooñu bu ñu génnee tey jii di attaqué Macky Sall dafay firnde que ak décision bu Macky Sall jël dàq leen ñooy loolu ñooy ànduñu ci jëgu nañ ci APR mais ànduñu aussi ci taxawaayu Macky Sall ci gannaaw Amadou Ba dañu tuumaale Macky Sall du euh, jàppalewul dëgg-dëgg Amadou Ba ñoom luñ ci seen gis-gis défaite Amadou Ba Macky Sall moo ko organisé ndax bañ jàppale Amadou Ba comme ni mu ko waroon euh, jàppale euh, soo xoolee Amadou Ba daf ko limogé sax fekk élection bi lu ci desoon bariwul lool lool lool. waaw loolu pour ñoom seen gis-gis mooy que lu leen daax fekk Macky Sall jàppalewul Amadou Ba euh, Macky Sall dafa bokk ci défaite Amadou Ba duglu sabab défaite Amadou Ba Macky Sall ci euh, euh, bokk na ci ñoom defe naa tey ji su dee jël nañu seen responsabilité bay attaqué Macky lu muy firnde mooy que jóge nañu jóge nañu ci APR amatuñu benn confiance ci ci Macky ak ci APR léegi nag euh, est-ce que Amadou Ba dina leen topp bon defe naa bu ñu xoolee APR en tout cas ni mu tëddee yaakaar Amadou Ba mu ngi ci loxo ñooñu. ci wàllum njàngale mi baccalauréat technique door nañu ko démb loole nag taxoon jamono ji rek jëriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu jàng formation professionnelle ba di Amadou Moustapha Sare moom nag ma nga woon rek di wër-wërloo centre d'examen yo lim yi war a sëgg ci examen gi toll ci ñetti junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak benn ci ay dongo doon am te ñoo xam ne daanaka gisuñu leen euh, ñu daal di door lu mel jàppale na nag jëwuñ gi rafetlu na bu baax a baax tëraluñu examen yi. fii ci Parcelles Assainies ñu ñëw euh, fekk nañ fi euh, surveillant yu doy. Euh, fekk nañ fi tamit organisation boo xam ne wax dëgg yàlla kenn mënu cee wax dara ndaxte ku yore examen bu amee solo ni examen formation professionnelle nga war cee mën a def énergie bi ci war pour er, examen bi jaar yoon. nangeen ngeen jàpp rek ne ci Sénégal yëpp incha allah ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, examen toll nañu ci euh, ñetti junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak benn te nañu jàpp ne am na junni. ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk juróom-ñetti fukki jigéen loolu rek ndam la ndax jigéen ñi jàpp nañ ne seen taxawaay rafet na ci wàll formation professionnelle te bëgg nañu mu gën a rafet encore te li ñu bëgg tamit moom mooy bu ñu jógee fii dinañu dem ci yeneen établissement dina ñuy dem ba yegg ba Thiès sax incha allah pour xool naka la organisation yi demee te fii ñu jóge daal am nañ ci satisfaction ci wàllu tàggat yaram joriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàll yi moom dem ma woon nag ci ndaje li nga xam ne jog nañu ko jagleel naka la ñuy def rek ba daal di suqaliwaat cadre juridique wàllum tàggat yaram. Khady Diène la mu bëgg rek moo di code wi ñu soppi ndax bari na ay rëq-rëq ca nekk nen daal jot nañu ko ba mu yàjj laataa ñu ko jébbal pencum ndawi réew ma joriñ bi ñu dénk wàllub tàggat yaram engagé na li nga xam ne moo di cadre juridique bu ñeel bépp activité bu soxal tàggat yaram Khady Diène Gaye jiite na li nga xam ne moo di atelier de partage avant projet bi nga xam ne moo ñeel saytu bi ñu war a indi ci tàggat yaram bu Sénégal. dañ fi daje pour waxtaanee li nga xamante ne moom la ñuy wax avant projet de loi portant code du sport ñu tuddee ko la loi sur les activités physiques et loi bi nara tënk lépp li nga xamante ne lu jëm ci la pratique sportive fii nii ci Sénégal. processus bi nag bi ñu ko tàmbalee ak léegi ëpp na fukki at ndaje bi nag dafa bokk ci wéyal activités yi nga xam ne tàmbali nañ ko ngir indi ay coppite ci secteur boobu nga xam ne bëri na ay mutation foog te ñu indi ay coppite ci yoon bi nga xamante ne mboolem acteur du secteur du sport ci la tonk pour doxal wàllam pour doxal liggéeya 2013 tàmbali woon na waaye yeggut woon ñun tamit ba ñu xamante ne dënk nañu leng yi teg ñu ci kaw boppu département des sports bi ñu daal di koy jël ñun action bi nii duggoo ko ci suñu plan d'action sectoriel. liñ ci jublu nag moo di fexe ba loi bu bees bi mën a méngoog jamono. boo jëlee aspect yu bëree bëri lu ci mel ni professionnalisation bi lu ci mel ni financement bi lu ci mel ni doppage bi digitalisation bi nga xamante ne loolu kenn mënatu ko bàyyi gannaaw bu ñu fi génnee tey dinañu jël bu soobee yàlla document bi daal di koy synthétiser waat. xoolaat ko relire ko avant ñuy àgg ca pencum ndaw réew mi ca assemblée nationale. bu ñu sukkandikoo ci Khady Diène Gaye loi 84 59 nga xam ne moo tënk lépp luy tàggat yaram fii ci Sénégal dafa rek wane ay limitam kon nag faaw ñu saytu ko mën a indi ay coppite ci texte yi nga xam ne moom mooy doxal tàggat yaram fii ci Sénégal. Matar Bari ñu àddu nag jëmale ci mbirum Copa America tàmbali nañu ko nege ñi dem mel ni Argentine ma doon jogante jogante bu njëkk ba moom am na ndam digganteem ak kanada ca Atalanta lañu ko footballé ñaari bal ci dara. mbir bi nag métti woon na ndax mën nañu ay xat-xat yu ne meeku ci milieu de terrain bi waaye nag jàppal laata rek ci pàcc ñaareelu pàcc wi gis nañu daal yoon wa ba tax nag tembo sax waroon na caa am ca boobee jongante waaye daal mujjul en tout ci fàttali Mexique Jamaïque États-Unis Panama ak Costa Rica ñoom nag bokkoon nañ ca ñu ñu dalaloon pour ñu saytu boobee jongante. Coupe d'Europe jamono ji mu ngay wëy Espagne daal di làpp démb Italie benn bal ci dara. jàppaleen ne boobee nag bu euh, bi nga xam ne nag am nañu ko ginnaaw rek ñaari juróom-ñaar fukki simili ak juróom rek moo tax italien yi nag ñoom mu suñu gis rek tolof tolof ko ga nga xam ne am nañu ko waaye nag mën nañu ko rek daanaka jaajëfalee seen ab capitaine mi tax ba Espagne nag daanaka lakkul ceex ya jàppaleen ne ci yenn ni jànko ci yenn ni euh, rencontre yi nga xam ne ñu ngi koy nam am ci bëccëg gi dana dox ci Danemark Angleterre ñoom itam benn rek euh, benn bal lañu am ku ci ne dañoo témboo boobu niki tey ji nag ci aljuma ji ba benn waxtu jotee Slovaquie ak Ukraine ñu di doon laale bu ñeenti waxtu jotee ci kanam tuuti Pologne dina jàkkaarloo ak Autriche waaye itam jogantu yu gën a mag boo xam ne ñu ngi koy xaar bu juróom-ñaari waxtu jotee dafa nar a dox ci diggante Pays-Bas ak France Pays-Bas ak France ba juróom-ñaari waxtu jotee lay doon jamono ji ñuy addu ngeen di teelu jàppale nag ni diggante Ukraine ak Slovaquie boobee ku ci nekk benn bal nga magum ñoo nga ca ñaareelu pàcc ba mbokk yi noo sax la ñuy def ba restiku ci lenn kaay yi xëy fësal tey ji

dala ak jàmm yéen i kaay bari dikkaat nañ si aji ba ñii li nga xam ne mooy li nga xam ne moo dox ci diggante Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xam mooy naataangoom Emmanuel Macron loolee kat bëgg rek a na daal li nga xam ne kat mooy partenariat euh, li nga xam ne moo ko neex maanaam rek bëgg daal li nga xam ne mooy lëkkaloo diggante ñaar dëkk yi ju fexe daal ba respect mutuel am waaye tamit tolloole ci li nga xam mooy intérêt bi ba tey axe Dakar Paris kat ñi seet beneen nekk nooy gu bees bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien benn gis-gis la benn doxalin loolee daal ba si Diomaye Faye bëgg indi waaye tamit loolee daal fekk si mi ngi daal di tukkee ci forum mondial nga xam ne moo ñeel wàllum innovation euh, waxtaan ak ki nga xam moy naataangoom bii ba tey Walf Quotidien samp laaj ne dañoo dem ci new deal maanaam doxalin bu bees ba tey loolee daal gis seen kat ki nga xam ne Bassirou Diomaye Faye dafa daal di wax li xam mooy volonté waaye tam ci ñaar dëkk yi ku ci nekk daal xool la nga xam kam mooy sa intérêt morom laaj bu sampoo ba lañ fekk si ci Vox Populi ne daal Diomaye ak Macron ndax Paris gagnant gagnant la ba tey ñu xool ci li nga xam kat mooy diggante gi tolloole la mën a ci ñaari yow way président yi nga xam ne daal daanaka sax ay gone lañu ba si Diomaye Faye ak Emmanuel Macron a li nga xam ne coopération diggante ñaar dëkk yi réew bi quotidien ne ko dëgg la Diomaye Macron ñi ngi koy confirmé waaye yéen kaa bi nee na ndax mooy lu njëkk daal ci ah, benn añ bu nga xam ne ñoom ñaar ñoo ko daal di seq ñaari njiiti réew mi waxtaan nañ waxtaan wu xóota ko dëgg la ndax ki nga xam mooy Diomaye waaye moom ma ngi fay détaillé projet am bëgg rek li nga xam ne mooy gis-gisam ñu mën koo daal di jëmal jarale ko ci souveraineté vaccinale la ba tey le soleil ne ko loolee daal la bëgg ndax boobu mi ngi jël cas bi nga xam ne moo rek bu institut Pasteur bi nga xam ne pionnier la ci wàllu woowee fii ci Afrique léeg loo xam ne kat nañ ci mooy coow la nga xam moo am ci camp pénal bu ñu sukkandikoo ci les échos nee na ginnaaw jàmm am na waaye ginna bi ñu seetee ci nit yi lañ fa fekk ci ay téléphone bari na ak wàlluma ciné ba di chanvre ak boo xam ne daal di bënn li nga xam ne mooy téere alxuraan daan ci nëb bi téléphone am waaye gis ne kat lii nga xam daal mooy visite yi dañ gën a wàññi l'observateur ne daal loolee sori na ko ndax la nga xam ne daal l'observateur nee ba tey leen loo xam ne mën cee waxtaan mooy benn gunaas ki xam dañ koo daal di faat jot nañ ko identifié ndax kat daanaka arme de guerre la daal di jëfandikoo le quotidien nee ko daal bu dee Mouhamed Nagounass moom daanaka sax patt pataaral la def fa lépp ne tekk daanaka askan wi ñi ngi tëju seen kër bërëb jaayukaay nag moom kenn tëji wala dem ak dikk bi lépp taxawa daanaka dikk bi daal dañu lu sëngeem yéen kaay bi di enquête moom mi ngi dikk ci wàllum émigration clandestine Barça wala Barsax diggante janvier ak weeru mai daanaka lu tolloog rek ñeent fukki gaal looco ak juróom-ñaar kenn gisu leen lu doon ci juróomi weer yi nga xam ci leen génn lu tolloog rek juróomi junni ci doomu aadama kenn gisu leen te loolee sax ñi ngi bàyyi ko daanaka lu tolloog fukki dëkk ak juróom opérationnel daal ndaataatal lax dëgg am fa xam ne mooy PUMA ci programme d'urgence modernisation ci axe frontalier PUMA daal la mu mooy fexe ba daal jël ay charge de mission lu fukk ak ñaar jox leen du toll rek boo xam ne ba ko fayee ñi ko gam-gamle ci lu toll rek 457 millions ci diggante 2019 2021 ci wàllum tàggat yaram Stades Quotidien di ci euro bi nga xam ne ñi ngi xaar match bu ci diggante France ak Pays-Bas waaye France ndax dana a football jërëjëf Momar Cissé cooy lekk leeral mbokk yi cant ak gërëm tamit ñel na leen ci yéen ñi doon ànd ak ñun boobaak léegi Suzanne Dem ma lay jaajëfal amoon naa mbégte jan ak yow Grégoire li itam ñuy doon teewlu joxante dig daje ci yeneen jotaay xibaar lay doon lu mooy loole rek bàyyi leen ngeen wéy di topp suñu programme jàngeen jëf jàmm ak